màu to

kii kii doon du fi gan kii kër gi fi la dëkk léegi kii warul warul warul ñu xëy toog toog di ko jàkkaarloo moom mu teg baraadaam te tegul tegul warga tegul kaas tegul dara lii lan la. da ngeen a jox ma laa soxla ah ñu doon koy jox. maa ngi yow si gàllankoor bi yomb quoi. mënoo gis naa yambare. te war nga mën a ñëw fii nii teg sa baraada bi teg sa pepp yi kër yi ndax da ngay ataaya da nga yobaate ah, quoi. waaw yow da nga yobaate da nga yobaate. sama xarit bi leeral la ni yéen moo tànn la moom nga jàpp di ko kël-këlee si kër doo leen bàyyi jàmm. ñu ne yow soof lii mooy lii lañ naan lii lañ naan nduuma noo sant. nga ne wele <laughs> yow lu tax nga saytaane ñu ñaan ñoo yokk kii daa wax dëgg booy gaaw si ay ne booy ah. da ngeen maa jóg wala man de xamatuma si dara. c'est que awa moo dem bay bay bay interprète xaw ma interprète loolu lay wax interprète c'est xaw ma waaw. yambar bii. yéen yéen yéen da ngeen a soxla yéen yéen ñaar ñii da ngeen a bon. waaw moo la moo yow faaw mu doon benn cërës boo xamante ne moom mooy leen tëj. yéen yi ngeen nekk nekkuma si de. man liggéey ma ko ñu doon wéy si la yamar xaw ma seen ñu doon rek yéen waaw baax na rek góor yaay góor yaay may may ma ñeex nga yow yow yow kii moo yambal mais booy gënoon naa fi ñu fara am naa may rek war a ji dégg nga waaye boo la ko dalee si affaire yi jox la nga taal nii xam nga. eh man nekkuma si yooyu de. léeg-léeg bàyyi leen kii bàyyi leen kii taw si leneen. loolu tey kii taw si leneen ñoo taal. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kon nag yéen a ngi toog. waaw waaw waaw waaw kii rek fële wu fi dara nag alaaj sama baay waxoon na ko ba muy ñëw alaaj. yaay waaw. alaaj ñii ñooy. ñii ñooy ñii ñooy sax yaa li ma bëgg a wax ma waxee rek muy dóor quoi. alaaj ñii ñooy ñan. papa ñii ñooy samay xarit. waaw alaaj yow alaaj ñii xoolkal bi ñii ngeen war a xëy góor mi dafa leen dara ngeen toog jàkkaarloo. papa As papa As ah kii daal yow waa si. <laughs> sama rakk la. ma ko fa mu doxee la. ma ne ma ne ma ne Ibra ma ne ma ne Ibra Ibra Gueye. doomu Ibra Jonkor. ko waxee fii. yow kay Jonkor la mën a jël sa bokk la te bokk ko toroxal. boo toroxalee bokk yàlla toroxal la. alaaji jàppale ni kii sa ndijaay la. ni ma nekkee sa ndijaay. cër bi ma jox moom nga ko war a jox yaa ngi may dégg. mais Ndiaye la benn affaire de cër bi benn la te yow laa jox de. te li ma bëgg rek ñaan ñi ñaan ñi. ñaan ñi à partir d'aujourd'hui bu ñëw laa la wax de ñii ñooy sama ñooru tubay. kon dina tekkeeku. tekkeeku. tekkeeku lay de man ñëw kër gi. déggoo a tekkeeku ma génn kër gi bàyyi laa kër gi. nijaay. yow il faut ñu laale. waaw laale yow yow Mbese yow kii nii. kii sa nijaay la kii moo la jaral ngay say xarit moo la jaral. yow noppi laa sa morom de. Eh, sa morom eh, ah. noppi eh, laa la na sa morom. na ngay dëgër amul tapet na dëgër. lii na nga koy nay dëgër. Papa kii nii day tux yàlla. sa boy dégg nga boy bi dégg nga. man de man de foofu la la fi indi. dinaa sama xarit wu ñu la fi. waaw Ndiaye doon présenté Iba Jonkoon. Iba Jonkoon. ah man de man ñoom naa. waaw Iba Jonkoon. waaw waaw kii suñu jabar jarbaat la. waaw xam naa nag. dalaa miinagul nag. ndax dañoo nekkul dëkk bu lu yàgg. man de xam naa ko démb day démb day day nañ sànq. seen yéen di yomb daje nañ ci xam naa ne suñu duyoo ci kër gi moom du yomb. non non dafa yomb di jaay nga baal ma tuuti rek nga baal ma rek. mais di jaay sa leer bi sori na de. daa weex lii tànk bi mooy la mbay kii. dërëm bët. waaw xanaa kii njàmbaaru li jaay weer bi feeñ na. weer baa ngi jaas gisoo weer bii ma ah, weer baa ngi. aw kaay xool weer baa ngi nii kaay xool kaay xool. weer baa ngi nii kaay xool. weer baa ngi nii. ay laa ay laa weer baa ngi nii. weer baa ngi nii. suba la ñuy woor. suba la ñuy woor. suba la ñuy woor. suba la ñuy woor. weer baa ngi nii. ana ma man gisuma. wàññi lu ñu fi gis muy yuuxu. boo gis dara da ngaa gis. ah ah wax yàlla nag. waaw mën naa fekk weer la. lii lii ab weer la lii vidéo la. lii weer a. xoolal ah, mais pourtant weer la de. ah léegi koor gaa ngi nii. weeru ngëneel. ah weeru jégalante. as weeru jégal. as ay eh waay weeru koor gaa ngi nii waay ndaw eh weeru koor gaa ngi nii waay ma xool noo kolo kolo def caay bi waaw jërëjëf man la as nag maa la koy xamal wala ñuy woor daaw maa nga wooree daa lay jorof daa lay jorof daa woore woon saa maam aram gëy damaa defaroon sept saaku mburu fa nga a ak kat kat kat kat saaku saaku cere ma koy xëddee di ko ndogoo ndax ma ndax du ma xiif ma ko xamaa la weeru koor gaa ngi nii danañ ko woor si jàmm woori ko si jàmm. waaw ndax jàmm lañuy woote. ah ah. paa bi moom sànq li mu doon wax fii nii est-ce que moo ko tay. ah paa bi maa tiital le alaay. maa tiital le. sëb saako faga daga la paa bëgg a lekk. sëb saako daga. dawal bés eh. bu fees. ak kat saako. cere sa quatre saaku cere. laay dëkk bi dama la ko dee ah. laay loolu de moom yéen mën leen ko ndax yéen mën leen lu ne jigéen góor. ñeenteel ñoom. Eh, eh, eh, xam nga lu ma la yëgal. bul traversé samay xarit. yaa ngi traversé samay xarit ah. ba te te fii quoi. kii sa rakk la yow sa rakk mu la gën a see xarit alaaji. borom dëj bi mën naa jooyal boppam ba ma moo jooyal sama bopp. ana baba ku ma naan jooyal. ba pare ni fas waaw yow yow yaa war a waaru ndax soo xëyee doo toog seen kër yow looloo tax saa soo xëyee di gis la waar. yow xanaa gis nañ ko doom dañ koy yar. ah walaay yow ma yow ma war a wax ak kenn ndax yow mooy gajaf nga taxaw maa yow moom. <laughs> Eh, nooy gajaf. nooy gajaf ah. ah aw eh, foo jógee à part aujourd'hui bii. Hmm. nooy gajaf kase tuddee nañ ko. nooy nga yaaf. rek ko nooy trop quoi nooy trop xamal la. naa ko muy yem. yow foo jugee. du bi feeñ na. yow mënoo woor sax man dafa boobu man mii xam naa ne mënoo woor xale nga xale du woor. mënoo xale boo bëggee mën woor fa nga koy jàngal woor. waaw dina ba nekk mag ñàkk jom. seen doo jàngal à l'âge de sept ans à l'âge de sept ans. ah xale war na see mën a commencé woor li jaay ah. wuy leen ma wuy leen ma. wooree ba ma wuy leen fii ku fi dëkkul na seen kër weeru koor. ah wallaay yéen ndax kooru ren gii li fi amoon daaw dugub bee génn bi du fi am ren yéen may fii kër gi ñëppay woor sauf awa. yow. na nga wuti liggéey yow boo xëyee neb lemel beeg ñeem ñemel bi nii na dëgër nga dem wuti liggéey. boo xëyee kër gi maa la bàyyi maa la bàyyi booy yi. alaas bàyyi rek leen ma leen. as bàyyi nga maa ma war a waaw kër yi damaa ko gën ah nga sax mu am ren. incha allah waaw. nga baal ma teg say emploi du temps say bilan xam nga. wax ni ñuy wooree si koor geeg affaire yooyu noonu mais ndi daay nga baal ma de mais man mënu ma woor ah. nga ne lan. ma woor ah gi eh. da nga woor de. yaay man munu ma woor yow xam nga ne carrément man. yow loolu tere woor yow piqué crise. non mais ku nekk sa soir. damay piqué crise man munu ma woor. ah mais mu waay eh eh eh. yow nit ki yow yow yow man mënu maa woor man dama la dee. moom su wóorul garaaw moom daal mooy gajab moom su wóorul garaaw. bu neexee yàlla weeru koor ren gi dinañ ko woor si jàmm wari ko si jàmm. am na jox jàmm laa woote amul ambiance.